ce qui se passe ak Gappo lu fi mën di xew moom mooy le vrai responsable ak les autres autorités. ñun nag indi ay tontu ñu nga xam ne ñoom ñooy notable ak habitants de village yi daal di jege lool maire bu commune bu Patar ñoom itam ña ngay daal di weddi e, kàddu teg ci itam di sàkku ñu nga xam ne ñoom ñooy autorité yi ñu daal di continuer liggéey bi. lotissement bii suñ ne jaaru si yoon waxuñu dëgg nan wax li am ndaxte lotissement bii biñ koy def ñoom ñëpp ñoo d'accordoon amul képp koo xam ne dellu nga ginnaaw su fekkee ne nag ñoom dañoo encaissé loo xam ne ñoom mënuñ ko attanuñ ko bu tax ñu nekk fii di mbele mbeli di wax ñoom nan ñu wax. lotissement bi dafa bëri ñoo xamante ne ni dañoo jàpp ne lotissement bi awul ci yoon. wax bi mooy ñun ñi nga xam ne ñooy population Gappo li nga xam ne mooy suñu yite tey mooy li nga xam ne defoon nañ ko pendant des années. ñu réglé ko ba kenn ku ci nekk am ci li nga war a am. ngir nag indi ay leeral ci li nga xam ni moom mooy mbir mi euh, li nga xam mooy dossier litige foncier bi nag daal leen koy yóbbu ca kanamu tribunal ngir ñu indi ci ak leeral.